ndax dañoo bokk lu ñu ma séddoo muy docteur Sibi am na fu jaar ak waa Ndande te ndijaayam la ma bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yi seetaan. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sang-sang yi Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. ñoo ngi gërëm sunuy waajur tey ñaanal waay dawla yi yal na yàlla yërëm. amiin yaa rabbal aalamiin jullit. di jël nag ñoo bu gën a tedd teg ko ci ki nga xam te ne tubarkàlla moo yilif ñëpp. Mhm. muy njiitu réew mi. muy son excellence le président Macky Sall. Mhm. di ko ñaanal jàmm ak salaam ak sutura. bu loolu weesoo ki nga xamante ne nag mooy président communicateur yëpp di sunu maam di sunu baay di sunu xarit di lépp muy alaaji Mansour Mbaye ñun ñëpp ci moom lañ sukkandiku. Mhm. di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér ak wérle. bu ko weesoo maa ngi wàcc tubarkàlla ki nga xamante ne ndeysaan mooy ñu nit ki nga xam moo ñuy yilif yilif biir Pikine muy alaaji Lamine Thiam mhm. di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér ak di ko ñaanal ñami tamit ñu ni tamit ki nga xamante ni. moo ñu yilifaat ñu tamit téye ñu ñu tuwaat muy alaaji nag euh, ah, alifaar mu baax mi tubarkalla lat kura mu baax mi xam ni la di ñaanal nag tubarkalla association des jeunes communicateurs traditionnels les excellences ñi nga xam ni ñoom la yàlla jàmmal ñu bëgg jàmm wër jàmm dégg jàmm xam jàmm di ñaanal diggante opposition ak pouvoir yàlla na fi yàlla def jàmm ak salaam réew mi benn guuta mm-hmm. na ci ñëpp jàpp bu kenn taal réew mi nañ jàppante noonu bëggante noonu fonkante lii yàlla pare na ba pare kon yàlla nañu yàlla jàmmal jàmm moo gën fii ak fanu jëm comme dañuy door a door ah kon nañ bàyyi ba ci kanam incha allah. mu ngi noonu kontaan nañ lool bu baax mut saw nuyoo bi ak introduction bi am na solo ki ma waroon na jëkkee te mujjee ko moo bokk ci man ma bokk ci moom ngir dama ko may soxna buur géwël ma bàyyi ko mu nuyoo ñi seetaan <laughs> moom it. sama goro jërëjëf <laughs> ñoo ngi kontaan bu baax. ko bëgg. di la nuyu bu baax di wax. ni la tey uh-huh. def nga lu rëy. ñoo ngi nuyu réew mi yëpp. ndeysaan waaye la ku ne xam na ne bu réew mu yëngoo rek bu géwél yi jógee mu daal. ndeysaan ndax géwél yi nag la jàmm rek lañuy wax ci réew mi. ñu lay ñaanal yàlla defal la jàmm seen télé bi sunu borom yokk ko bi jàmm rek lay wax. télé bi jàmm rek lay def. tubarkàlla bi mu ñëwee ba léegi nit ñi dañoo am jàmm juboo am na ci réew mi yaatal am na ci réew mi la rawatina nag tey nga indi les jeunes communicateurs traditionnels fii ci tele bi la ñu war a waxtaanee jàmm bi réew mi kon nag waa réew mi tubarkàlla seetaan leen buur géwél yi ñu xool fan la. jàmm ji ne ji ne ñu jeex fan la jàmm ji ne. jeex fan la jàmm ji am na solo mu ngi noonu. buur géwél kontaan ku ne xam na ni bu àllarba jotee ci waxtu wi xel yëpp day dem ci Lutte TV rawatina émission bu mag bii di taxaw seetlu taxaw seetlu nag bu buñ ko defee c'est universel dafa yaatu li ñuy jeex di ko raas mooy jàmmi réew mi Baro ñu jaajëfal la ci hymne national bi nga ubbee naar ñëw na ci léegi Léopold Sédar Senghor président dafa waxoon ni pincez tous vos corps à frapper les balafons xëcc leen riti te xëccaat kooraay waaye bakk leen junjum yi loolu Ibrahima Faye bës li muy baax baax bokk ci loolu géwala ko moom ñoom nag ay garmi lan ay géer lan ay gelawaar lañ ay bete bete lañ fi ñu duggee mooy le lion rouge à rougi ca gaynde lañ duggee damay bàyyi rek ki nga xam ni mooy baro di jalibaa mu yëkkati waat xalam gi tuuti ñu doog a dugg ci li nga xam mooy waxtaan wi tàmb Modou Samb jox na micro mu ngi noonu kon am na solo macha allah ku ne xam na ni géwël dafa baax cim réew ku ne xam na ni géwal rôlam mooy boole ku ne xam na ni géwal rôlam mooy ñaw ku ne xam na ni géwal rôlam mooy wax lu baax nous sommes les héritiers de nos ancêtres Alaaji Ale Fall géwal ñu bari dañuy wax ni yàlla na xam boppam ma bëggoon a xam nag dëgg-dëgg président lan mooy rôlu géwal ci penc bi jërëjëf Alaaji Sëriñ Bay li nga ma laaj dinaa ci kontaan a wax lool ndax dafa am géwal ak communicateur hmm. te ñaar yooyu nag yaakaar naa ni dafa nekk loo xamante nii bokkunu hmm. géwal da ngay xam fi nga juddoo xam askan wi nga jóge ak ñi la meññi ñan la ndax tey boo xoolee ñi nga xamante nii tey ñoo doonoon ay géwal hmm. ku ci mel nii sunu maam Déthié fu Ndiogou nga xamante ni tey ñi mu daan àndal am na fu ñu leen tegoon wegoon nañ leen lool lool lool mhm. fonkoon ay géwalam ndax tey boo xoolee àdduna nekk na loo xamante ni dafa xaw a doy waar ndax géwal war naa xam mooy kan mhm. géwal war naa xam askan wi mu bokk géwal war naa xamit li nga xamante nii moom moo nekk ci moom mu koy pratiquer. Mhm. récemment rek fii boo fi xoolee xam ni ñëpp ay doomi buur géwal yu baax lañ doon ay communicateur xam nga dañ naan chaque jour géwal sàq la. Mhm. mais président lan mooy rôle géwal ci penc mi. rôle géwal ci pénc mi mooy di wax lu baax di def lu baax bu sëriñ mbay xulooweeg naar. nga dem ca suuf ni ko waa naar xanaa déggoo li la Serigne Mbaye wax barki démb ci pénc mi. sedd na xol. dem ci sëriñ Mbaye ni ko xanaa déggoo li la naar wax ci penc mi barki démb ñëpp taxaw sedd na xol ku ci nekk bu nu merante woon dina giif waaye daal di la wax ne sëriñ Mbaye géwal sàq la. Mhm. mbaax a ngi ci biir. ngor a ngi ci biir. yërmande ngi ci biir. teraanga ngi ci biir. def lu baax mi ngi ci biir. macha loolu nag. Mhm. kon ñun ñi nga xamante ni ay géwal lañu nanu xamaat ñun ñooy kan te sëriñ bay damay lancer un appel. Mhm. bu la yàlla dogalee nga doon un communicateur. Mhm. war ngaa am fulla war ngaa am fayda war ngaa am personnalité waaye nag léegi réew mi yàqu na. da ngay gis nit ko gaañu yóbbooguñ ko sax ca armeer ya mu nekk ci biir margo nga gis géwal wala un communicateur ñëw di di di di ñaala gay naa ko wala di yaasal jalaali wala di wasan li yàlla laa. non dafa ñooñu ñooñu ñoo seen bopp ay communicateur. loolu waaye duñ ay communicateur loolu ñooñu. <laughs> Uh-huh. loolu nag dañ koy lancer un appel parce que lu am solo la. Uh-huh. loolu lu am solo la. Uh-huh. moo tax nag ku ci yàlla dimbali nga doon un communicateur da nga war a am mbub mooy sol ak étiquette booy sol man Alé Fall de du ma dem fu ma woowee. te du ma ne diw mukk yaa baax te defaloo ma ñaar dërëm mhm. noonu nag la ñu war a doxe ci réew mi alaaji sëriñ mbay ndax loolu lu am solo la am na solo président xam naa dinañ ci del si mm. ma bàyyi rek macha allah sama goro mu wax ma lan mooy rôle géwël ci pénc mi jërëjëf alaaji Serigne Mbaye da nga dugg fu am solo mhm. muy loru géwël dans la société mhm. xanaa xamoo ne alaaji sëriñ Mbaye géwël buur la bu xamee boppam mm. dama dégg sànq professeur Massamba Gueye ni géwal akub ñaankat bokkul. du benn. géwal ba baax ñooy wax lu baax. ndeysaan. ba àdduna yi baax ñoo ànd ak buur yi. bu geer masaanaam ñooy jiitu bu geer ba jeexee ñoo lay nett li geer ba fi mag ñu baax ñu neex ke cheikhul xadim ay géwal a ko dara. Mm. cheikh Massamba Diarra Mbaye. cheikh Marouba boo demee Tiwaawan kër Cheikh Seydil Hadji Malick baayu euh, Mansour Mbaye mii alaaj ëmmat Mbaye Maodo ñooñu ñoo doon géwél yi mm-hmm. ñoo defal Hadji Mansour ñooñu ñoo defar sa jabari ñooñu ñoo defar ëmmat Ndiaye noonu la géwél daan mel président de la république yi fi nekk yëpp dañoo amoon ay géwél mm-hmm. ci géwél nag mooy ki nga xam ni moo lay xelal lu baax mm-hmm. moo lay diggal lu baax moo lay wax nooy def. ak mhm. say bokk moo lay wax nooy def ba jubóog say bokk. Mhm. xanaa xamoo ni sëriñ mbay géwél yi lu xew ci réew mi mën nañ ko rek. ndeysaan ñoo mën a apaiser réew mi. Mhm. xamoo tax ñooy dem ci gàmmo yi ñooy dem ci màggal yi ñooy dem ci tudd yi ñooy dem ci dëj yi. géwél bu baax nag lu baax rek moo ko war. ndax koo xam ni dangay wax ñu lay déglu. Gueweul ce sont les modérateurs. Mmh. Ce sont les euh, exemples de la temple. Mm-hmm. ñoo la mën a net li histoire ndax bu njëkk ba ñun wax lañu daan def daan nu bind. Gueweul daan nett li histoire tey ba nga mën cee sukkandiku. Mm-hmm. noonu la mag ñi fi nekkoon tey jii Hadj Mansour yàlla na ko fi yàlla bàyyi. tey jii nag bu yàqoon askanu Gueweul tey jii kenn du bëgg doon communicateur traditionnel. moom rek doy na ci exemple. Mm-hmm. ndax da ko ñoŋal mook ñam fi nekk ndoowool ñu daan ànd nii ñu def noonu la géwél yi daan def. noonu la géwél yi daan def bu nu waree dem bokki géer. Hmm. di àndandoo di sumbandoo di noccendoo gis nga bu nu waree dem fenn bu kenn manqué dañuy avorter rendez-vous. Hmm. fii lañ daan toog ci lalu wurus foo daan seen siège ñun nag noonu lañu ñu wu léegi da ngaa wax ni. mag buy def nay def loo xam ni xale bu ko gisee man jaaro mhm. mu nekk loon solo ñun nag mooy suñuy référence alaaj sëriñ Bay ñooy suñuy référence ñu bàyyi naar mu wax ñu moom it lan mooy rôle géwél ci pénc mi ñu nuyuwaat bu baax a baax alaaj sëriñ mhm. macha allah foofu nga am na solo lool macha allah mhm. ndax boo ne rôle géwél ci société bi eh, benn mag bu baax doon wax ni bu réew mu yëngoo nee nañ jàpp ñaar ñi ñu ne ko ban ak ban mu ne nañ jàpp artiste yi ñu ne ko ak ban mu ne géwél yi lu waral loolu naa géwél yi ñooy les gardiens des histoires. Mhm. dama la ci nettali benn xisa. maanaam bu histoire réeré ñoo ko war a bindaat. bu histoire réeré ñoo ko war a bindaat. Mhm. jërëjëf dama la ci nettali benn histoire. Mhm. muy monsieur Niang ko bindoon yàlla na ko yàlla xaar àjjana benn benn cinéaste bu mag. Euh, mu ne benn gouverneur dafa ñëw ci benn dëkk. fekk fa buur ba. ñëw wax loo xam ni dafa mel ni daf ñoo xeeb ñun. ndax dafa ni moom fi mu traversé yëpp. gisul ñu ne am nañ histoire. Mhm. keroog buur bi dafa mer bu bëgg a jóg jaamaarloo ki nga xam ne mooy gouverneur keroog sunu maam moo ko dalal. ñun géwél moo tax ku xamul sa bopp ah man day xam naa sama bopp. keroog sunu maam moo jóg ni ko ah buur àndal ak sa sago waaye nag dafa laa bëgg xamal ni la yow li war a défendre sa sa réew yow la waaye nag li war a défendre suñu histoire nag buur. ah ñun la. naar nu ko waxee ci tubaab. def na ko gouverneur. Mm-hmm. il a existé dans le passé. et il a été chanté partout dans la légende un très grand empire. dëgg loolu. les voyageurs et caravaniers le reconnaissent par la grandeur des tombeaux des rois qui y qui fut jour le berceau d'une grande civilisation. Eh. pour se protéger des intrus un gardien colossal un sphinx assis mais sa taille domine le monde. à travers profond regard c'est lire la mémoire de tout un dispersé. et arrête ton regard sur les murs encore témoins du domaine de Dieu qui juge les nations les nations noires en or le jaune habillé d'argent et la blanche en peau de bête nga xamante ni kon suñu maam kon xam na luy waru garam hmm. kon bu jamono demee tey bañ naan tey nañ ñi war a wax nañu wax kon ñi war a wax ñooy ñii tey ñooy géwél yi am na solo naar am na réew mi fi muy toll am na ñoo xam ni dañ leen a war a fay ñu noppi waaye réew dina am foo xam ni dafay toll am na ñoo xam dañ leen war a fay pour ñu wax foofu lañ tollu nag jamono bii moo waral ñu dajale groupe bi war leen a mën a fay pour nu wax ngir lan dañuy ras jàmm ngir lan dañuy jeex jàmm dañuy def directement ci tem bi thème bi mooy lan mooy jàmmi réew ki ma njëkk a jox kàddu bi nag mooy mut mut mut saw Modou dama lay bàyyi nga wax nu dëgg-dëgg jàmmi réew mi bu ñu ko doon wër nan la ñuy def jërëjëf Alaaji Sëriñ Mbay man ku sant mbay dama lay bëgg ndax sama maam njaaña mbay ca ngaay ñoo ma meññ waaye ne sàmbe ni dañ maa jaaxal ak mbuubeen waaw foofu moom moom moom nañ ma ko jaxasoo na daal waaw jaxasoo na euh, jërëjëf euh, dañuy ñaanal ma alaaji Abdou yal na yàlla yokk leeram ca barsax képp koo xamante ni bokk nga ak moom waane ne jàmm gën fii ak fan jëm te nit kuy ñaan boo duggee oto ba wàcc jàmm gën jàmm rek nga fay wuti. Hmm. li ñu naan yàlla yàlla na métti déggoo ko fenn ci àdduna yàlla na jàmm yàgg rek la ñuy dégg. Ah. dégg nga loolu. yàlla na nu yàlla defal jàmm. Hmm. yàlla na nu yàlla lafal cat te dolli ñu sutura xewal di ko sàkku nag ci diggante li am rek. Hmm, ci jàmm ji di ñaaxaat jeunesse bi réew mi mag ñi seen wàllu wéy na li ñuy wax wax nañu ko ñun lañ conseil li ñu conseil mooy lan nañ ko jëfee. nañu wut jàmm ci réew mi bu nu taalee réew mi ñooy sonn. bu nu taalee réew mi suñu doom yi ñëw ëllëg ak suñu sët yi ah ñun kat suñu bàyyi ñoo taaloon nii. ñoo defoon nii ñun kat dañuy taal ñun loolu du doxal réew. loolu du doxal réew. réew li koy doxal mooy lenn mooy jàmm ji nga xamante ni tubarkal la moom la li nga xam xamante ni ndeysaan taxaw euh, seetlu. Mhm. jóg te ça se passe sur la Lutte TV. Mhm. nga xam ni tubarkal kal la ñuy jàmm rek la ñuy wër te jàmm dafa neex ci xol. hôpital boo fa demee amee fa góom gu méttee méttee métti xam nga ni dama ne docteur yi bu bu la jëlee di la piqûre ci ci ci góom pour anesthésier la xam nga da nga naan dañoo soxor. Mhm. mais jàmm lañ la bëggal. jàmm la la bëggal bopp buy métti lu koy faj boo indi aspirine lépp amoo jàmm day métti. Mhm. jàmm daal moom la ñëpp saxoo yàlla nu yàlla defal jàmm yàlla nu yàlla defal cat tuddoon ci tarxew jàmm daal moo faj fépp daal am na solo mu taw jàmm gën jamaa Mm. waaye jàmm moo gën jaamaarloo mu nekk kaddu gu gàtt waaye kaddu gu am solo damay bàyyi Abbas mu wax nu tey jii en tant que porteur de voix en tant que communicateur traditionnel xale yi nga xam ne damay leen di dégg ñu naan dañuy taal réew mi Abbas ban message nga leen di jox à travers Lali TV bi nga xam ni adduna bi moo ngi koy seetaan. bon message bi may la population sénégalaise. message message. Abbas leen wax lépp lu nit am lu dul jàmm. micro bi tuuti Abbas dégg am lu dul jàmm. Mm-hmm. boo ko amee doo ko jëriñoo. Mm-hmm. moom ngay wax si sa biir wax naan jàmm gën jama di lancer appel suma ay frères suma ay sœurs suma ay parents di lancer appel toute la nation sénégalaise. ku mm-hmm. ñëpp nañu revenir à la raison. nekk autour d'une table. de négociation ñu waxtaane réew mi mm-hmm. parce que suñu bokkee loo xamante ni mënuñu koo séddoo doon ko war a rafetal ndax ki fi nekk président de la république bëgg na heure bu mandaam jeexee buy bàyyi réew mi mu bàyyi ko ci jàmm mm-hmm. ki koy remplacer aussi tamit suy ñëw bëgg na mu héritier réew moo xamante ni dafa nekk tamit ci jàmm mm-hmm. moo tax may lancer appel képp koo xamante ni nii euh, jóg nga pour jóg pour ñaxtu li nga xamante ni nii euh, doon na loo xamante ni lu la naqari li ci réew mi constitution bi wax na euh, droit de marche waaye aussi tamit toujours damay am lu may fàttali rek mhm. droit de marche am na waaye képp koo gis mu toog ci tele di wax droit de marche droit de marche rek la wax mhm. muy doon phrase boo xamante ni nii nii ba ñuy tënk constitution bi tamit bindewuñu ko noonu rek yem ci. Mhm. am na leneen naka leneen luñ ci teg parce que da nga damay dem ñaani autorisation. Mhm. soo demee di ko ñaani tamit autorisation muy les services compétent mhm. soo demee da nga war a mun a toog déggoo ki ñoom ci itinéraire yi ñu lay jox. ak ci wax yi ñu lay wax. waaye soo paree damay dem ñaani ba pare ñu ne la bis bii euh, du baax pour nga def marché bi wala itinéraire bii nga tànn baaxul pour marché boobu nga bëgg a forcer su boobaa yow jàmm taxu la woon a jóg. ñaxtu la nga waroon a ñaxtu taxu la woon a jóg mhm. ñu wax ni képp ku jóg pour ñaan da ngay ñaan yàlla ñu may la mais boo demee aussi mayuñu la mun nga xam ne ki la mayul tey ëllëg mun na laa may mhm. di lancer appel la population sénégalaise yàq baaxul mhm. kase baaxul daan nañ jóg def marche si dans les règles de l'art ñibbiwaat seeni kër dem tëdd yeewoo ak jàmm continuer activité am parce que su élection amee bu ñu xëyee la demee service yëpp dañuy continuer doxaat parce que état continuité la. macha allah may ñaan yàlla li fi xew. yàlla bu mu fi xewati. Mhm. yàq baaxul. kon mhm. sa nawle am otoom sa nawle am këram sa nawle def ba mu baax xamoo nan la def ba am loolu nga xëy un bon jour yàq ko affaire animosité boobu am ci biir réew mi man vraiment mosuma xam loolu. Mhm. di rappel lépp apaisement nañ la revenir à la raison di ñaanal yàlla réew mi am jàmm ba ñaanal ñëpp communicateur nag. journalistes yi communicateurs la mm-hmm. les artistes musiciens les artistes peintres ñëpp mun na nañu wax ni ci ay communicateurs la mm-hmm. ñu leen ñaan ñëpp ñu lancer message ñu ñëw revenir kenn ku ci nekk daal sa waar ci tool ci nekk bay sa waar di xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk jërëjëf am na solo mu ngi noonu kon bu soobee yar ak teggin dafa nekk lu am solo te jàmm mënu ko am fu fu fu yar amul waaye jàmm mënu ko am fu teggin amul te damay dégg ñu ni fu fu fu jàmm yendu fanaan fa mag a fa xam lu mu waxut mhm. jàmm réew mi la ñuy jeex musoo bi lan ngay wax. waaw di waxaat asalaamaaleykum yëkkati micro bi yëkkati micro bi. di nuyu sama waajuru jigéen. Mhm. di ko ñaanal wér ak gudd sama soxna Jaaga Seck di wax ni moom de may na ma jàmm. ndeysaan. ndax wax dëgg yàlla jàmm fi nga koy njëkkee. man dama bëgg musoo bi. non jàmm fi nga koy njëkkee mooy sa biir kër. dëgg la. jàmm fi nga ko njëkkee sëriñ bay sa biir kër. al aqrabul awla lu gën a jege gën a yey. nga koy njëkkee gis boo génnee sa kër ak fitna. Hmm. koo dajalanteel fitna nga koy teg. Hmm. sa kër boo fa génnee ak fitna koo dajalanteel fitna nga koy teg waaye sa kër boo fa génnee ak xol bu sedd guy ak xol bu neex koo dajalanteel da nga koy rey ndax. jàmm loo bëgg a wax foofu. Serigne bay mooy réew mi jàmm rek moo ñu moo moo moo ñu ji. dara jiguñu lu lu jàmm sëriñ bay réew mi danoo am lu kenn amul. réew mi dañoo am mag ñu baax ñëpp te mag ñu baax ñu koo ci dem ëttam di nga fa fekk loo xam ne boo demee beneen dëkk doo ko fekk. Mhm. muy Tiwaawan muy Tuubaa ak foofu mën a dem kenn ku ne boo demee ci ëttam da nga fa fekk loo xam ne beneen réew boo demoon kilifa goo gis doo ko fekk ëttam mooy alxuraan mooy jaamu yàlla mooy di dimbali koo koo tane te lépp dafa tënku ci biir jàmm bu jàmm amul woon loolu du am. Mhm. te sunu réew mii. am na leneen lu ñu jig lu dul loo xam ne jàmm rek ko ñu jig. macha ñun jàmm lan xam. parce que dëgg la li xew ci réew mi métti na ñëpp. ku ne méttiwul mm-hmm. la rek. Mm-hmm. yaakaar naa ni doo ab jullit. dëgg la ñëpp la métti. Mm-hmm. te jàmm ki ko jiite mooy kilifa gi nekk ci biir këram yar njabootam moom moo war a njëkk jàmm ndax saa su ne buy woo njabootam di waxtaan ak ñoom ci jàmm njabootam bu génne dina xam ne lii kat sama baay mi mu koy tere baaxut duma ko def. waaye réew mi toll na foo xam ne Serigne Mbaye fi ñu toll nii temm maanaam kilifa yi amatul temps pour wax ak seen njaboot. Mhm. ndax kenn ku ne yaa ngi bàyyi sa njaboot mu nekk ci lu ko neex te loolu wër. Mhm. maanaam daa baaxoon. bu bu takkusaan musaana jot taxaw seetlu taxaw seetlu njaboot gi. Mhm, maanaam reer bu jot bool yëpp dañuy tegandoo ñëpp sukk ci bool bi ñu reerandoo waaye léegi reer day jot sa doom ñëw naa la jox ma téeméer ma jënd reer. jox ma mille reer. loolu amatoo temps pour waxtaan ak sa njaboot. crise de valeur. te loolu lépp daal tënku ci biir jàmm. Uh-huh. tey sa njaboot am na nooy toog di waxtaanee ak moom di leen yee ci réew mi fi mu toll nii yow de bu mu la ci gis bul taal baal ba bis ba jot ka nga am yéene sa carte nga dem sànni ko ko. Uh-huh. waaye tey maanaam tey di naan di naan suñu doom yi ci boppam suñu doom yi ci boppam tey li ñuy def dañ koy def ba pare seen kilifa soo ko yëg. Uh-huh. dañuy def loo xam seen i kilifa yi tànk yéen nekkoon démb ak démb. dañu xool tànk yi ñuy dox nii seen bàyyee jaaruñ ci woon seen maame jaar woon seen day jaaruñ seen i tànki bopp la kon baax na nag ndaw ñi surtout ñun ñii di jeunesse ñun ñii ay ndaw lañ de ñu ñu fi toog ñëpp ay ndaw kenn amul ci karaw gu weex. Mm-hmm. kenn dàqu ñoo sànni xeer kenn dàqu ñoo taal waaye dépassé la ñoo ko mag ay téeméeri yoon. kenn du la ci ñoo ko mag parce que la ngay yàq yow wóor na lay wóor na yàlla nii. sa yëfa sa yëfa. Mm. ëllëg dañ ko indiwaat ci réew mi station bi nga jàpp taal ko ëllëg kooku day defaraat osan bi nga taal tey ba borom osan ba tey gedd na bi nekk Pikine Icotaf borom osan bi gedd na nee na osan dootu ñëw dootu ñëw Sénégal arrêté na boobu te osan ba ñu ñu loolu suñuy doom a ci liggéey ñu suñuy doom a ci liggéey amul benn tubaab bu ci liggéey su nuy doom képp ñu doon liggéey ci osan yi te li gën a garaaw mooy Serigne Mbaye weeru koor bu masaan jot nga dugg ci osan bi boo yoree lu mat juróomi junni di nga dugg loo xam ne mën nga cay war 15 jours njëkk yi. la ilaha illallah. te Pikine léegi bu bëggee osan fan la ko jëli amut kon nag li may wax mooy réew mi ñun ñoo ko moom buñ ko kenn yàqal ku ñu nar a yàq réew mi leen la sëñ bi fii nga ñu jëmee xamuñu ko tey xamuñu ko ëllëg liñ xam suñu réew mi mooy jàmm ak salaam te Serigne Mbaye jàmm mooy lépp jàmm mooy waral ñuy dem ci tudd jàmm mooy waral ñu dem ci xew yi jàmm mooy waral suñu président alami jënd xar ñaari xar toog ko ba mu baax woo gaa yëpp ñu toog lekk ko jàmm ko waral. jàmm bu amul am am na solo. ah jàmm tax ñu tal ko daal. waaw jàmm jàmm su su ma déggee. macha allah mu nekk lu am solo. ma bàyyi rek sàmm mu sàmm. balaa may ju ñëw ci macha allah buur jëwul ak président. jërëjëf El Hadj Sëñ Mbaye. jàmm. maa ngi lay nuyu bu baax. wax ni nag. bala ngaa bokk ci coow li da xam lan moo waral coow li. Hmm, bokk coow xam li xew a ko gën. xam li xew a ko gën. nga réew mi. Hmm. ñun dafa mel ni bi ñu réeroo. ndax xamuñu li ndax loolu jàmm jàmm ko gën. Hmm. damay gis que ni ay sëñ Mbaye. wërsëg yàlla daraja yàlla nguur yàlla yàllaay tànn moo koy jox ku ko neex allahu akbar waaye lépp ndaw ñi dañoo yàqamti yàqamti sa wërsëg kii gën ci réew mi di wa gay defar réew mi di wa li yëg la yàlla rek moo xam hmm. am na ñu fi nekkoon bala ñu leen a fal dégg nañ lu ne yaa fi ne yaay defal fii yaay defal kii bu ñu ñëwee ba toog la ñu rek lañ def dem seen dem. Mhm. te yàlla du changé programme ki gën ci réew mi ñu ngi ñaan bu ñëwee lenn rek lañ koy ñaan muy jàmm. jàmm ndax liñ naan kaas yee rek waaye ku xëy guux. Mhm. te ndaw ñi dañoo foog ni dinañ xeex taal. pour ëllëg maanaam war a tekki ki fi ñëwaat. en lay commencé. voilà. ki fi ñëwaat problème lay am ndax day commencé waat à zéro te nag lu waaye lépp tamit. te bu nu waxee après ñu ni Sénégal doxul. waaw bu ñu waxee ne Sénégal doxul te doxul gis néew ñun ñoo ko yàq. ñoo xam nga xam nga gar mi dëgg. Mhm. day mer maîtriser. Mhm. sago. sago c'est très important mën naa joteeg tey. ngusoobe mhm. wax ba dënn tàng waaye waruma dóor violence la Sénégal rek ngay gis ngay wax ak nit rek mu dagg saaga day na la teel loolu Sénégal rek boo demee ci yeneen dëkk yi boo ko defee dinañ la namm yaa ngi ca kaso ba il faut que ñu ànd ak suñu sago mhm. il faut que ñu nangu dogalu yàlla réew mi réew ñëpp la ñëpp la intéressé bu ñu sañoon tey Sénégal mel ni Dubaï macha allah waaye yàlla suñu borom. Mm-hmm. mooy def programme am. na solo may tàllalaat loxo ñëpp rek. Mm-hmm. ay seen mbay di wax ni nañ gën a dal. nañ gën a dal nañ gën a juboo te xam ni réew mi benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar asalaamaaleykum mu nekk lu am solo président dan ni ku jiite ku nekk ñu ni la sa gannaaw gu rëy gi nañoo baal ci kàddu yi ndax jiite yombul mm-hmm. ndax mën ngaa jiite te saga amul. ndax mën na laa jiite ca sago amut ndax jàmm mën naa am ca sago amut président Alé Fall lan nga ci wax. waaw mais El Hadj Serigne Mbaye lii Cheikh Al Hadj Abdou Aziz radiyallahu taala anhu rek. daan wax moom laay wax. Mhm. doomu aadama bu fekkee ne sunu boroom da door dóor yat wi. Mhm. nga jiite mbooloo da ngay jéggale di jéllale. ndax nag loolu noonu moom mooy tax objectif bi nga bëgg a atteindre sunu borom yombalal la mhm. te loolu c'est très important. beneen bi ci topp mooy jàmm dafa nekk loo xamante ni yàlla nañ ko am fii am ko fa lu jëm. ci barke yonent bi xoolal ki nga xamante ni këram la gaare otoom wala xoolal ki tabax tabax bu bees këram tey mars am yoonam nekku ci ñu toj otoom. wala ñu ñëw fekk ko ci buntu kër gi taal ko. Oh. mais xoolal yooyu jëf ñaaw nag boobu innocent. te yoonam nekku ci. loolu nañ naan ay du yam ci bopp borom. Mm-hmm. kon est-ce que jarul ñun xale yi li may wax bis bu yàlla sàkk rek ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak bàyyi muy parti pouvoir ak opposition. Mm-hmm. parce que tey ku fi xeex ak sa morom ba gaañ ko ba deret génn boo demee ba sa mer giif di nga am yaraange te di nga rus lool. kon est-ce que jaaduwul kon ñu tàppe xol yi mhm. ndax tàppe xol yi nag dafa jaadu ci heure am la ñëwee waaye nag dinaa la wax loo xamante ni tamit lu doy waar la mhm. réew mi daanaka boo xooli téeméeri nit fukki nit yëpp ku ci nekk boo xëyee sa xol gi ngi tàng te xamul lu ko tàngal mhm. jaadu na ñuy yor nag ay kurus di def ay astaghfirullah ak nag di set am na ci solo lool ndax tey boo xoolee réew mi di nga wut jàmm sax gis koo xamante nii safaan lay wut. Mhm. mu nekk loo xamante ni lu doy waar la ci lay profité nuyu rek koo xamante ni kenn la ci ñun muy ji Mbay mi ñuy seetaan ñun ñëpp. Mhm. bokk ci les jeune communicateur ndeysaan mi ngi koy seetaan en direct. macha allah waaye Alaaji Serigne Mbay di la wax ni daal. Mhm. ëtt bii nga woote tey. nekk na ëtt boo xamante nii. wax dëgg yàlla. Euh, ñun ñëpp am nañ ci satisfaction. Mhm. ndax fii ma toog sama téléphone bi mi ngi toj waaye mënunoo jël. déedéet noo ngi nuyu ñëpp. Mhm. ndax yow wax dëgg yàlla. Euh, mhm. wàññiwoo da ngaa yokk mbay. ndeysaan nit ku baax nga. président am na solo dinañ dikkaat léegi dinañ dikkaat léegi. waaw dafa am koo xam ni dafa dugg. ndeysaan te bokk ci ñun ñu koy wax Mor ma père. mu ngi seetaan émission bi en direct ko defee ñu bàyyi rek Mor ma ginnaaw bu mu nuyoo mbokk internet yi ni seetaan Mor Mapper jàmmi réew mi la raas yaa ngi foofu ci France foofu nga nekk ñun nga fi nekkal waaye ñun fi ñu toog la fi toogal communicateur euh, communicateur international comme ni ko naar di waxe lan ngay wax ci jàmm réew mi suñu ambassadeur. ñu jàpp seen télé ngir TV di seetaan mu nekk international. fii ma toog ci France di membre association des jeunes communicateur de la banlieue suñu njiit loolu toog bi àllaaj Alpha Lacoura di nuyu ñu toog foofu ñëpp jël sama nuyoo nag di ko teg ci loxo mu saw mu séddale ko comme ni mu koy defee ci panel bi rafetlu koy teewlu mais macha allah yàlla bu ñu cat jiitu mhm. ndax toogaay rafet na ci nuyu borom télé bi président ñu dugg directement ci thème bi lan la la la la jàmmi mi lañuy raas yaa ngi foofu ci France waaye foofu defe naa ni dañ lay ñaanal yàlla yàlla defal fi jàmm waaye boo amul woon jàmm doo ta woote. waaw ndax euh, butee bu ne la mu def la saay bi xeeñ te bu dee da ngaa woote ni da ngaa doon communicateur war a mën a woote ci jàmm jàmm ci yow lay njëkkee. ndeysaan te toogaay boobu jàmm moo ko jàmm moo ko damay faral di wax naan ñe juróomi juróomi dëkk yi ku ko saxoo suñu borom dina dogal kam jàmm. neel benn. benn Mermoz soo meree muus. mer muus dëkk mer muus def mu jikko. waaw boo ngor dëkk mm-hmm. ngor boo fa jógee dëkk gore mm-hmm. xaar yàlla. déggal nga teere jàmm gën kenn dul gaaw a yàgg. <laughs> ndax ndax ndax boo boo xoolee boo xoolee te yàlla daf ñu am lu mu defal ñun waa Ndakaar ndax loolu lépp. concentré wu. Mhm. juróomi dëkk yooyu ma lim yëpp. kon tey ñun bu amee association mu nekk foofu Ndakaaru ñun ñu nekk fii ci àll bi di représenté bi kon bu ñu bëggee tëdd ba nelaw ba yandoor sunu xel daa mën a tal ndax loolu jàmm moo koy lal te jàmm jooju comme moom ngeen di jeex yàlla ngeen dajeeg moom. amiin yaa rabbi te moom di ndax li ngeen saxo li ngeen jàppoo bu ngeen ko bawul dëkk bi dina am jàmm ndax xamee woo leen parti au pouvoir xamee woo leen opposition xamee woo leen tarixa ku woote wuy jigéen barki dem bi xalif général day xaadar waree dugg pikin jiwli la woo ne leen teeru leen ma te ku surtout yonent bi woo la ne la teeru sil ma sama maam kon yoroo lu ndaw kon loolu ngeen yor di ci nas di dox jàmm di ko wax yal na law ba tekk si ak Sénégal képp tekk si ci àdduna bépp ñu nekk ci àll bi di wuti lu suñu borom yombal ñu ko ba lu mën a wutit bu ñëwee war a mën ko investir bu ñu fekkee jàmm day gën a neex jërëjëf kon naa jërëjëf jërëjëf président waaw maa jërëjëf mu ngi noonu Mor per suñu xarit la bokk ci association bi macha allah di les jeunes communicateurs traditionnels macha allah di wax kat lu baax di def kat lu baax buur géwél mu mel ni que jàmm ci la nekk yàqante der gi ci internet bi bari na naan sa dereti morom pour dund xot ci xormay nit ñàkk teggin waxante lu bon est-ce que loolu mën naa continuer di am jàmm am. waaw surtout nag loolu yàq na réew mi <laughs> waxante lu bon moom lu yàq réew mi la man de damay tiit des fois parce que man bëgguma lu ñaaw. ndeysaan. man lu rafet laa bëgg noppi garmi laa yor lu baax rek laay déglu. te réew mii fii mu toll buñ ci jugul ndax émission yi xam naa ne du dakk ndax réew mi nii mu mel faaw ñu jug ci waxtaan ak xale yi waxtaan ak ñi nga xamante nii seen xel yi di jug ci lu ñaaw nga xam ne lu ñaaw rek la ñuy wax lu ñaaw rek la ñuy dégg lu ñaaw rek la ñuy gis ñooñu maa ngi lancé message ñu xam ne réew mi jàmm rek moo ko yor ak wax lu baax. ak déglu lu baax ak xool lu baax ak gis lu baax. Hmm. loolu mooy defar suñu dëkk damay faral di wax ni yàpp benn caf ko rek la yor te jox na ko ñeex. loolu. te li ñu yor <laughs> koo war a jër delloo waat ko ci lu baax. yàqu na <laughs> waxaatal loolu. dama ni. waaw. yàpp benn caf ko rek la yor te jox na ko ñeex. ñun suñu jëmm yi daal su ma la déggee mooy jox nañ ko réew mi. waaw kay jël sunu sunu sunu jëmm yi sunu xalaat yu rafet weccoo ko lu baax ndax benn jour dama togg lu ceebu keccax bu xonk war a añ ñu ne na ngay sànni racramosaire yi mu dugg ci samay bët gisatuma mënatuma lekk ma xam ne réew mi war nañ cee jóg. maa ngi dee non ndax léegi-léegi sama nawle bi wax na lu am solo. ndeysaan. nee na dëkk bi yàlla dafa dogal ñu am ñu baax ku ci mel ni Seexul Xadim ku ci mel ni Seydi Hadji Malick ku ci mel ni Limaamu Laay ñu am ci ñu baax ñoo xamante ni ngi ci réew mi. ndeysaan. kon tey ñoon bu leen di roy ci lu baax kon ñun war na ñoo def lu baax di xalaat lu rafet. Hmm. di xalaat lu baax ndax jàmm rek moo gën ci réew mi. xam nga jinax dafa daanu. Hmm. mus na koo tim ni ko baa gaañu woo mu ne ko yow lu mën a xew ba ma ak yàlla. looloo ko doy sunu sunu réew mii na lu mën a xew noonu baa ak moom <laughs> lu mën a xew du bàyyi ak moom. looloo am solo macha allah. buur jëwal yàlla dolli yàlla yàlla dolli jàmm. jërëjëf nan taal réew mi mooy toog ci branche di ko siyee nañ taal réew képp koo dégg mu koy wax jàpp naa ni amul ci réew mi dara ca la waykat ba ni woon ku fi am liggéey am sa dignité te nag dëkk la. am na fa woykat mag boo fi woyoon ni xale yi ku leen juróon yërëm leen lan moo tax ñu leen yërëm sama goro élage lan moo tax ñu war a mën a yërëm xale yi loolu lan nga ci wax jërëjëf alaaji sëriñ mbay nga rebondir nag ci ci fu am solo mhm. ndax dañuy wax wax ma sa jeunesse ma wax sa ëllëgu réew dégg nga léegi mbusoo bi dafa ñëw ci lu am solo mhm. gis nga citoyenneté ak crise de valeur moo nu dab ca hmm. loolu dañ ci war a taxaw seetlu gis nga ñiy taal ci kër lañu bàyyeekoo hmm. ñiy yàq ci kër lañu bàyyeekoo gis nga boo amee sa doom gis nga Cheikh Moulay Abdal Aziz Sy Dabakh radiyallahu taala alaaji sëriñ Mbay hmm. bi ko Cheikh Seydi Hadji Malick di jox sëriñ Adi Touré dañ ko lépp mën naa ñàkk ba mu des yar yar yar gis nga alaaji sëriñ mbay hmm. gis nga nit bu yaroo dara du ko fëkk nit bu yaroo jomm naa def dara gis nga boo demoon ba ci àllub ñu tegal la fa milliard wala ñu defal tegal la fa ay limousine nii nga koy rombe hmm. ndax sa yara lay téye gis nga gor dafa am solo hmm. nga mag ñi ni daan yare dañ ko indiwaat yar ngo nit ku baax da ko koy mooy kan yaay kan foo bokk li nga don di ko ñaax loolu géwélee ko fi dese. géwélee ko fi dese lan nga war a lan nga war a doon ëllëg. waaw Cheikh Sidi Hadji Malick. radiyallahu taala. da géwél ba da ko fekk mu toog ca daara ja mu àgg ko. taalibe yi ajajal ko mun leen déet bàyyi leen ko wax ma may kan ndax nit ñi xam maay kan. allahu akbar. nga nit tànk xamoo yaay kan. mënoo jariñ sax sa société. dëgg la mënoo jariñ sa bopp. ba jëriñ sa société mënoo jëriñ sa bopp mënoo jëriñ sa société. ca Sénégal nañu jiital le parti le patrie avant le parti macha ndax gaal gi sa góor ga Moulay Abdal Aziz boo amee sa ëmb. Hmm. mu ne ci gaal gi da ngay ñaan sa gaal mucc ndax sa ëmb mën a mucc. loolu am solo gis nga Sénégal gii. El hmm. Hadj Serigne Bay xam lan mooy valeur u jàmm. Hmm. mooy richesse. richesse. mooy mooy valeur waaw mooy mm-hmm. valeur mooy mooy richesse bi gën a am solo parce boo demee ci les pays occidentaux am na ko ko tudd léegi sama naatango koy li leen ëppale mooy jàmm mm. gis nga dama lay wan rek damay joxe rek le cas de libi mm-hmm. Libye demoon nañu ba Alaaji Sëriñ Bay doo jënd gasoil doo fay location yow am salaire mm. boo dee takk jabar état bi mooy jël benn benn benn benn euh, kii bu symbolique. <laughs> ñëw jox la ko. ñooy frais sa frais de mariage sa frais de ngénte waaye ñoom xamul leen ko yàqal. <laughs> ñàkk xam seen bopp. la leen yàlla defal ñun Sénégal nous sommes un pays minoritaire boo xoolee la carte géographiquement. Mm. dañu minoritaire waaye xam lan moo nu barkeel mooy jàmm ju naam. Mm-hmm. waaye ngal la nag buñ ko yàq. na ñu xam li nu yàlla boole gis nga danga wax léegi jaaxaan di tuur ndox mhm. gis nga li nga yàq ñun ñoo ko moom mhm. boo ko yàqee ëllëg état bu fi mës ñëw ci àdduna parce que état continuité la mhm. tey jii li fi Macky Sall def bu keneen ñëwee da ngay continuer waaye boo ko yàqee day ñëw reprendre à zéro moo tax am na loo xam ni dara jaralu ko nit ci àddunaam muy yàq li mu moom nit du yàq li mu moom. Mm-hmm. Auchan yi nu yàq. Auchan yi sunuy doom yi ñoo ciy liggéey. Mm-hmm. boo nee Auchan na fi jóge wala France na fi jóge waaye ñun mun noo dem sans ñooñu. Mm-hmm. ci dëkk bi dañu am ay ressources minières alaaji Serigne Bay te li tax ñu jariñu ci mooy jàmm. mooy jàmm tant que jàmm investisseurs yi du ñëw bailleurs de fonds yi du ñu ñëw sunu pétrole beeg gaz beeg fourgon bi ni wax kenn du ci jaruñu. kon daal foofu laa ciy rebondir laaj Serigne Mbaye ba ci kanam. mu nekk lu am solo président ale xam naa ni maa ngi ñëw léegi ci buur jëwal ak ki nga xam ne macha allah mooy Abbas waaye xale yi ku leen juróon yërëm leen yàqante der gi internet bi xotti xorma gi ñàkk teggin gi ñàkk sago gi ci dëkk bi président Allé di wayaan nit bay bëgg a xotti mbubam nekk ci xew taal sab téléphone. yaa jomba ñaaw fu la ndaanaan di jar di bëggëre ni yéeg ñaalo gay naago te yow kenn xamul communicateur nga kenn xamul goro goro waa jàngook waa jàngoog crise de valeur jikko yi nga xam ne dafa yàqu président Allé tey jii boo ci doon mele lan nga ni wax jërëjëf alaaji Serigne Mbaye ma ñëwaat rek di nuyu nag euh, sunu bàyyi alxaaji Mansour mbay mi ñu génne fii léegi mhm. ñu ngi koy nuyu bu baax ndax moom mu jéewul puso bi mu réer mhm. ak ñi nga xamante ni ñooy ay doomam ku ci mel ni Amadou mbay Garmi. ndeysaan ak alxaaji ci am Dogo. sunu kilifa ak ki nga xamante ni mooy alxaaji Bekaay Mbaye waaye li ma la mën a xamal mooy réew mi tas na. Mm-hmm. li gën a yéem ci àdduna nag mooy internet. Mm-hmm. ndax doomu aadama bi nga xamante ni tey bi muy judd sunu borom tàgguwu la. Mm-hmm. nga am ak moom problème. ni ko dinaa la weer weeroo ko sa bopp nga weer mm-hmm. li sëñ Bay Abdou di wax sëñ Bay Abdou sama sëriñ nee na képp koo xamante nii mi ngi xotti xormay doomu aadama mm-hmm. yaakaar ni kooka la ko def ndax na boppam ndax yàlla moo yor dernière décision mm-hmm. ak dernier mot bi nga xamante nii moom mooy décider beneen bi ci topp nag mooy dugg ci ngénte wala takk gis kilifa gu ñëw xamoo lu mu yor ci poosam. très important. xamoo lu mu yor ci poosam. Hmm. nga ñëw di ko ñaala gay naa lu mu ndaale ak naan ko jàmbaari Seydi xaaji Malick gaa ngi jàmbaari maam borom Touba gaa ngi nii jàmbaari seex na seex saat bu gaa ngi nii mu génne li mu yor jox la jox la ko ba pare la mu waroon a indi ci xew mi day retourné waat dem amaane sax amul essance bu mu taal loolu nag wër nañ ci wax def ci taxaw seetlu bu baax a baax a mm-hmm. baax mm-hmm. te nag ñiy def loolu yëpp bokkulu ci ñun ah nay leer nay leer ndax du ñu ay géwal ñiy def loolu yëpp ñu ci ëpp ay jàngkat lan nay leer parce que léegi jàngkat yi ñoom ñoo dem ba dugg ci communicateur loolu nag c'est très important looloo tax les jeunes communicateurs ñëw am fu mu taxawee marqué seen empreinte ak étiquette boo xamante nii tey ku leen gis di nga leen ràññee mm. loolu nag c'est très important Serigne Mbaye ndax nag am na loo xamante nii dug wayaan waaye baadool la la mm-hmm. nit koo xamante ni xamoo nu mu xëyee wala xamoo nu mu gontoo nga bëgg ñëw xotti xormaam ci digg mbooloo mu jël la mu yor jox la kooku nag bu deewee yaa ko rey ah. <laughs> président président mu ngi noonu non dëgg la looloo tax nag ñun les jeunes communicateur ñu am mm-hmm. étiquette yoo xamante nii tey. Mhm. fépp fu nu mën a dem ci àdduna ñun ñooy nduróole. ndeysaan te doo gis mukk ñu dem fenn naan ñaala gay naa ko gaa yaa ngi nii laaj leen dama naan leen sama gaa yi fu nu mën a dem nañu rassemblé wu ku nu yéene bu nu bëggoon a may téeméeri dina dinañu may million. loolu nag c'est très important El Hadj Serigne Mbaye. mu nekk lu am solo ni yëri yu nuroo fa tabarakalaw noonu la xol yu nuroo